aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mahamadou euh, di xalifatu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ko ñaanal xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall moom it di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barkeb Serigne Touba di sant yàlla bu baax ci dalal gi ngeen ñu dalal ci Touba Vision di la nuyu yow sëñ lamin ak ñi nga àndal liggéey bi di ziare bu baax a baax it euh, ci teewaay bi ak it jàppandal gi ngeen ñu jàppandal liggéey bi ba tax ngeen taxaw ak ñun fii di ñu laaj ci li nga xëy ni moom lañu moom la ñu dundee ci bi ci bis bi. xam naa sëñ Lamine di nuyu mbooloo mi yëpp rek te di leen ziare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa gii toog it di sëriñ Moustapha Abdou Sakor moom mi nga xëy ni tey jii ren jii moo ñu indil fii cant gi. ngir ñu fas yéene ko ànd ak moom. muy cantuk sëriñ Abdou moom Cheikh ma moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ziar mbokk taalibe yëpp sëñ Lamine. jërëjëf euh, sëñ Makhtar euh, bii mooy cinquième édition bi nga xamante ne Cheikh Moustapha mi ngi koy amal euh, nga gis taxawaay bi nga xamante ne nii fédération Tout Tank Toscana taxaw nañ ko ci bis bi ana bis bi tey bi nga dugg see lan nga yëg ak itam mbégte mi tey lan nga ci yëg ci bis bi nga xamante ne Cheikh Moustapha taxawal na ko. waaw alhamdulilahi rabbil alamin señ Lamine mu mel ne ren sëriñ bi dañoo indil cant gi fii ngir bëgguñoo dimbale ngir ñu ànd ak moom liggéeyal Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee wax dëgg yàlla am dafa jël li ëpp ci ci liggéey bi jagleel ko waa fédération Touba tout tànk Touba Toscana di siyaare bu baax di jëwrinu liggéey bi di jëwriñ suñu Cheikh Sarr ak jëwriñ suñu Fallou Niang mi nga xay ni moo topp ci moom ak la secrétaire général di jëwriñ suñu Maxa mu mel ni man mi nga xay nii man maay wax ak yéen maay jëwriñu comité d'organisation bu fédération tout tànk Touba Toscana waaye nag yemut ci loolu mboolem Toscana lépp lu Euh, dañu ciy bàyyi xel te dañuy ànd ak ñun liggéey bi mu mel ni biñ dooree fii cant gi ba fii ñu taxaw di wax ak yow Lamine ñi ngi ànd ak waa ñi nga xay ne ñooy comité d'organisation bi nga xay ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñooy saytu cant gi nga xam ne dara ump ñu ci suñu diggante ak ñoom ci tàmbali ba fii ñu wax ak yéen te it incha allahu taala ñoo ko fas yéenee ànd ci liggéey bi ci diisoo gi ci xalaat yëpp fas yéene ko ànd ak waa fédération Toutank Touba Toscana boobu ba léegi Toutank yi nelawuñ ñi ngi ci jàpp ci côté yi fépp foo xay nii maanaam fa la waaye nekk tey te di ko jàppee ci liggéey bi moo xam lu mu mën a doon ci ahlu boo mën a bokk wax dëgg yàlla am boobaak léegi yaa ngi sa présence fañ la tegit yaa nga fa yaa nga fay liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra kon wax dëgg yàlla am waa fédération Toutank Touba Toscana ñu ngi ci bis bi ci ndoorte gi te it allah ñu ngi ko fas yéene ànd ak ñoom it ba ci jeexantal gi ci kat yàlla ak mbaaxam. bis bi mu mel ne euh, nañ fi li nga xamante ne nii moom mooy ay kaamil kuréel xasida yi ñu ngi noonu di yëkkati teg nañ fi tamit li nga xamante ne moom mooy zikrullah di kalimatul xaq di baatug dëgg di baatug laa ilaha illallah nga xam ne bi Cheikh Moustapha di dugg si moom lañ ko teeroo muy baatub dëgg boo xamante ne nii ñëpp képp kuy euh, yëngu ci wàllum diina rek baat boobu di nga xam ne moom mooy baatug dëgg kon nag bis mu doon bisug tawféex doon bisug ngëneel fépp fu waay mën a jóge rek ñëw na tew ci bis bi ngir Cheikh Moustapha ci yaatoom ci dalam ci teddam ak itam ci yaram wax dëgg yàlla mu wàcce mu wàcce boppam bañam ak ñëpp Cheikh Moustapha mu sëñ Abdou Chakour Fall te lan nga nu mën a wax ci moom. waaw sëñ Lamine. Hmm. wax dëgg yàlla cant gi mujj na kawe suñ njort lool ndax fañ ko doon foog. Hmm. yaakaar naa dafa fawxa ndax liñ ci doon yaakaar ak liñ ci doon séentu. Hmm. maanaam sëriñ bi liñ naan boo koy waajal. waajal ko sa kéemtu kéemtu laay kàttam fa nga yem rek. waaye bul xam bu bis ba àggsee fan lay toll. mu mel ne bañ xëyee boobaak léegi jàng nañ fi ay kaamilu alxuraan waa ahlu xasida tamit wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi fi di yëkkati ay xasida comme ni nga ko waxee mu mel ne tamit waa si sikkur laa gi wax dëgg yàlla yëkkati nañ fi sikkar euh, kalimatu laa ilaha illallah wax dëgg yàlla ci lu maanaam anam bu am solo anam bu mucc ayib ngir lan ngir ànd koog jëmm ji yi nga xay ni mooy Cheikh Moussa al Karim ci bis bii nga xay ni moom lay defal waa waajuram di sëñ Moussa sëñ sëñ Abdou Sakour Fall wax dëgg yàlla mu nekk koo ni suñu wóllëre la koo xay ni wax dëgg yàlla amit euh, ku ñu jàpp la ndax it wax dëgg yàlla am li ko war ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ak Cheikh Ibra bi mi ngi ci di ci def kéemtulaay kàttam te ànd koog ndaw ñi di ci def lu mën ak lu munut kon nag bu jëlee bis bi indi ko fii ci Touba Toscana rawatina nag suñu fii nga xay ni fii lañ dëkk muy Touba fu Secchio ak Santa Croce ak li ko wër nañu cant gaa ngi noonu teg nañ ko ci seen i loxo boobaak léegi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def luñ mën ak luñ munut ànd ko ak mboolem waa comité d'organisation bu fédération bi nag axlu café mi ngi fi axlu policia mi ngi fi axlu waañ mi ngi fi axlu comité d'organisation mi ngi fi axlu akolensa mi ngi fi wax dëgg yàllaam axlu raxasit mi ngi fi axlu parking mi ngi fi kon fépp foo xam ne ni sëriñ bi natt na la fa jox la foofa muy sag matt nga koy liggéey nga ko ciy liggéeyal wax dëgg yàllaam bàyyi nga sa yitte bàyyi sa lépp ngir ñëw jàpp ci bis bi ba matt googu ñu la jox ngir ngir ngir ngir liggéey liggéey euh, Cheikh Moustapha bi wax dëgg yàllaam ngir mu jaar yoon wala it mu taaru kenn ku ci ne yaa def sa kéemtalaay kàttan gis nga waa sécurité nii boobu ba léegi ñoom it ñi ngi fi boobu ba léegi ñoo ñoo taxaw fii di sécuriser di sécuriser sëriñ bi wax dëgg yàlla booba léegi ñoom it ñi ngi def jataay bu am solo di def it liggéey bu am solo mu mel ni ñun lu baax rek la ñuy sàkku nekkuluñ fi kenn sëriñ bi rek lañuy lañ fi nekkal ndax it wax dëgg yàlla ñun moom la sëñ Abdou Lahad waxoon rek Touba li habdil muridin muridin saadixin lawu moo bi xitmatin aw bi hobbil ahadiyaati mu mel ni ñun ay ndaw lañ yu futtiku jaay suñ lépp jox lépp sëñ Tuubaa tey bëgguñu lu dul sax ci di ko liggéeyal tey it yaakaaruñ ci ngërëmal kenn ngërëmal sëñ Tuubaa rek lañ ciy yaakaar kon nag képp koo xaye nii yaa ngi woote bis fii tamit bis boo xaye nii dara génn ci sëñ ak Cheikh Ibrahima Fall kon boo ñu ca wooyee danañ ca def luñ mën ak luñ mënut ci suñu doole ak it ci suñu ñax wax dëgg yàlla am lum ñu fekk ñu jàpp ko danañ ko ba ngir jëmmi Serigne Touba ji kon daal wax dëgg yàlla am sëñ Lamine di di di ndaw yoo xaye nii dañoo volonté volontaire jël lépp seen lépp jox ko Sëñ Tuubaa tey tënku ci baatub xidma ak fu waay mën a nekk ak koo mën a doon saa soo soxlaa fédération bi ngir mu ñëw xidmaal la ngir jëmmi Sëñ waa ñun pare nañ ci loolu ngir taxaw ngir jàppale la ci bis booba kon wax dëgg yàllaam ñun moom nekkuluñ fi kenn sëriñ bi rek lañ fi nekkal tey tënkuwuñ ci dara ci wabi xidmatin rek lañ tënku kon sëñ Lamine wax dëgg yàllaam interview bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ab liggéey boo ci nekkee ñu laaj la ci ay ay ay question wax dëgg yàllaam tamit da nga ci sawar a leeral lool ndax fédération bi wax dëgg yàllaam dafa bari ay ndaw yoo xay nii dañoo volonté wu ci jël seen lépp jox ko Sëñ Tuubaa fépp fu ñu mës a wootee fépp fu ñu mës maanaam fu ñu fu wootee liggéeyub Sëñ Tuubaa bi moo xam xidma la moo xam lu mu mën a doon waaye bu génnu sëriñ bi ñoo fay njëkk teyit jàpp naa ne ñoom ñoo fay mujj te loolu ak njàmbaar mayiwu ko liggéeyam nday mayiwu ko barke baay mayiwu ko góor góorlu ak pas-pas rek moo koy maye. te loolu li la koy maye nag moo mooy nga jël lépp fàtte sa bopp jël sa lépp jox Sëñ Tuubaa ndax moom ku ko jox sa lépp mu teel la sa lépp waaye ku ko jox leen it la nga ko jox rek loolu la lay teel bàyyi laak la ca des kon nag ñun dañoo fas yéene jël suñ lépp jox ko Sëñ Tuubaa kon Sëñ Lamine wax dëgg yàlla am bis bi moom kawe na njort lool sëñ Moustapha ngi nii toog wax dëgg yàlla am gani boppam yi tamit ñi ngi nii toog wër ko ñi nga xay ni tamit ñooy ñooy ay jege ñaaleem ñii di ay ñii di ay wëllëreem ñii di ay soppeem ñoom ñëpp ñu ngi fii toog comme ni nga ko waxee rek Italie li li muy yaatu yaatu teewut li ëpp ci gox yi nekk ci biir Italie fenn fu ne waaye jóge na fa ngir lan ngir teewee bis bi loolu nag ak yaatoom ak bëggam Sëñ Tuubaa ak bëggam tamit maam Cheikh Ibrahima Fall ak liggéeyal gi muy liggéeyal sëñ sëñ Abdou Sakoor yaakaar naa moo ko may lii kon li ñu def mooy ñaanal ko moom it mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba yéen am ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ak Cheikh mu defee ko nu kawe njortam te ànd koog ñun ci zaahir ak ci baatin barki mbootum xasida yi. macha allah jërëjëf sëñ Makhtar euh, man bi ma dugg see damaa bëgg ndax li ma gis organisation bi euh, taxawee ko mu doon loo xamante ne ni lu jaar yoon la mbooloo mi ñëpp booloo doon benn li suñ borom di wax ci alquran wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu booloo gi doon benn Sëriñ Tuubaa wax nañu ko ci wa kaana haqqan ne képp ku féete ak man ëllëg yowmal xiyaam maa yor sa texe muy xulubu jumlati lazina aflaxu li yatawajjad wa rabbil mustuqu taxawaay bi ma gis ko ci mboolem képp koo xamante ne nii rek bokk na ci fédération tout tànk Touba Toscana ci taxawaay bu am solo bi ci sécurité bi ci bernde yi ci joxe li nga xamante ne nii ah, moom mooy xeetu naan yi ci boisson yi ci ndox yi ci ataaya ci café gi wax dëgg yàlla bis bu doon bisub tawféex bis bu doon bisub ngëneel day mel ne ba bis ba Seex Ahmadou Bamba di woote naan nañ ko santale boromam kon bis bi loolu léeg lay wundu ndax baatub laa ilaha illallah rek lañ ci yëkkati ak di ci jàng xasida di ci dundal li nga xamante ne moom mooy alxuraanu sunu borom kon nag muy bisub diine ndax wabi wabi wabi wabi wabi wabi kalimat wabi xaqi diinan mhm. wabil islaami diinan mhm. waaw kon wa bi muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moom mooy taxawaayu bis bi kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di sant bu baax a baax a baax di la suñu borom guddal fan wi te wéral la lan ngay wax waa Touba Vision ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy def euh, dox li nga xamante ne moom mooy yaatal gi di ko jox mboolem képp koo xamante ne tey jii mënoo ñëw da ngay mën a toog sa kër nga suivre ko ak waa Bamba TV ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ngir jàppale leen si. waaw kay alhamdulilah rabil aalamiin sëñ Lamine xam naa bala sant waa Touba Vision. damay santaat waa fédération bi. ndax it wax dëgg yàllaam ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen i yitte comme ni ma la ko waxee woon rek. ñëw jàpp ci bis bi. moo xam axlu bu waay mën a bokk rek. doon ay jàmbaar lool yàlla dogal nag man ma nekk ci seen kanam doon seen jëwrin di leen digal ñuy def ma di leen tere ñuy bàyyi ñu déggal ma lool ma bokk ñoom jëmuwaay kon nag ñun moom ñi ngi fi doon ndawi Sëriñ Tuubaa yoo xaye nii yàkkamtiwuñ lu nit xewle lu jëm ci sëriñ bi ba woonu ñu taxaw fa taxawaay boo xaye nii mooy wabi xidmatin jooju ma wax rek kon ñun ci loolu rek lañ tënku kon sëñ Lamine wax dëgg yàlla am ñi ngi sant waa Touba Vision bu baax ci taxawaay bu am solo bi wax dëgg yàlla am gis nañ ne lépp loo xay ni liggéeyub sëriñ bi la wala luy leeral liggéeyub sëriñ bi wala luy jàll liggéeyub sëriñ bi ba mbokk taalib yi nga xaye nii ñi ngi ci ay gox yu facantikoo te mënuñoo agsi ci bis bi ñuy toog di jàkkaarloog bis bi di teewlu mbooleem li xaw ci bis bi loolu wax dëgg yàlla am seenu fay sëriñ bi rek ko ko am kon ñi ngi ñaan ci barki mbootum xasida yi moom mi nga xaye ni moo am lépp te mën lépp yàlla na leen dooleel ba télé bi dem fu kawe seen njort maanaam dem tamit foo xay ni yaakaaru leen ko woon te sëriñ bi am na ko mën na ko te jàpp nañ ko buñ ko ñaanee dana ko danañu ko defal ndax it wax dëgg yàlla am képp koo xay ni yaa ngi yaa ngi ci lu neex sëriñ bi di ko guddil di ko bëccëgal jàpp naa ne la lay la lay jëmale kanam loolu sëriñ bi rek ko ko am te kon kon nag ñi ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa di ñaan ci barkeb mbootum xasida yi Sëriñ Tuubaa yi yàlla na leen sëriñ bi yëkkati ba ngeen ne fang fu waay toll di leen gis ci barkeb Serigne Touba xasida yi kon sëñ Lamine ñi ngi sant bu baax di la jaajëfal yow di jaajëfal tamit jëwriñ ji nga xam ne nii moo taxaw jàkkaarloo ñun yor caméra bi di ziare ak di jaajëfal mboolem maanaam personnel bi nga xam ne nekk nañ ci waatu Touba Vision mm-hmm. di ñaan fépp fu ci waay mën a nekk yàlla na sama ñaan gi dal ci sa kaw ci barkeb Serigne Touba xasida yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jaajëfal di ñaan yàlla nañu Serigne bi defal ak ak dégg topp te saxal ñu ci njub ak akuk jaamu yàlla ñu yàgg fekke bis bi te yàgg cee taxaw te yàgg koo taxaw ci barkeb Serigne Touba xasida yi jërë ngeen jëf asalaamullahi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu macha allah jërë ngeen jëf mbokk yi Ah, mi ngi noonu ah, ñu feggoo woon ak sëñ Maxtaar ah, di jëwriñ ci fédération Tutanku Touba Toscana ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom yokk aw fanam te wéral ay cëram ci barke Cheikhul Khadim ñi ngi fii ci bisub Cheikh Moustapha moom sëñ Abdou Sakour Fall comme li leen ko waxee topp leen ñu ci Touba Vision ak Bamba TV ñu digmal leen li nga xamante ne nii moom moo fi jot a ruusali kon ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ba ca kanam di leen bàyyi ngeen wéy programme bi ak kuréel xasida ngi leen di jaajëfal bu baax baax di wax ba axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil